أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار أزيد يا همة الشيخ أودر لنا بأس المحضر wal ta tufi bi nasratin taatina bi subur ah mbokki daara ji daara asaabu sir jël saan ci juma fan bi ñu ngi ci lettre Mouhamad Misri yaa xamante ni xam-xam yi bëgg a xam yépp mi ngi ci biir ci mbindab Sayda Xadijatu Diouf ci xatam 24 bi lan Misri yi dikkee tey fam daan tàmbalee alhamdu hamdu lillaahi la alxilaafatu boo ko diggi yemam almasaru feññeeku waaye lañ ko tuddee wal amaanatu boo diggee amaana mooy kaa xam ne moom lañu wóolu bañ proposé woon suuf ak doj te mën nañ koo yem noonu almutasaayiru mooy kay def mooy kay mooy ah kii mooy manifesta ci kii lay manifesta ci xilaafa lay manifesta kon amaana du feeñ xilaafa mooy dikk feeñee ko ah kon nag lii maa ngi bëgg tey ñii oote xam nga tey dafa bëgg ñoo xamante ni ah maa ngi leen déglu daa bëgg su fekkee ne bàyyi ootewul dara sewul xëyri ootewul dara bul dem da ko ko ooteel ndax ñoom xam nañ direction yi na muy doxee ah yow nag xamuloo direction bi na muy doxee kon nag waxuñ xalifa alxilaafatu mësër la wal amaantiya almursaari waxoon naa la ko aadama xalifa la ka xilaafa la ba mu nekk ci xilaafa kan na utu du du du kon nag rëbb bi kon nag moo utoon koo utu is qaala ba kalimaat inna jaari fi ardi xalifa kon nag kii dafa dikk feeñ waaye ka ko feeñ yow nag moom moom la tuddee amaana bi amaana bi mooy ka nga xam ne moo biitoo biir ba sàngoon ak bitti ba ñu ni ko xalifa kon nag hiya wal amaan hiya al mutasayib fal maanaa luy maanaa fil abiyaati ci wuy yi ana asxaabu seer naka àndooy seex yi ah, yem te doona ñu nga tëbboo mi rasulullahi salaa sallam asaabu cheikh ñi nga jëlee seen mayka ah jëlee ko ci yonent sa yonent sa yonent sa salaahu salaam bi waasita hadratu xilaafat nag ci intermédiaire u ah hadratu xilaafat ñoom asaabu cheikh hadratu xilaaf fa la jaar doo ko dikk ñoom asaabu cheikh ah, kon da ngay déglu waaw kon asaabu Cheikh jot nañ jëlee ci rasulaay fu ñu ko jëlee ci hadatu xilaaf te mooy la am ndaxte rasulaay moom moo jëlee ci rasulaaq kon nag kan mooy rasulaay nag xàmmetuñ ko ndax dañu yaakaar ne mooy njool màkka numéro un te numéro deux bi nag moom la yoo ne lu asaabu Cheikh jot ña ko jëlee bi waa si hadrati al hadrati xilaafati léegi nag lii nii min la dun aadama na ko dalee ci aadama ba bi ñuy wax ci fii yow xamuloo moo tax ñu ne ña nga jot seen tëbb gi te xamul ka lañ ko jox ndaxte da nga dikk ne man ñii dañ seet yàlla ñooñ jox di dikk ne ci bi ñooñ jox mais xamul ci joxe ah yow lool ci kële kooku moom ah rasulullaay bi ak rasulaaq bi ñoom ñaar seen joxante kenn doonu ci rasulullaay bi nag loo cay jot ma nga jaaree ci hadratul xilaafat ah kon nag loolu yow man boo xam moo tax ñu dëkk ko kat miya ah moo tax nag <clears throat> lii yëpp ay ay ay sew sew la yoo xamante ni xel mën laa toog bëgg lu neex say taalibe nga di ko waxtaane léegi nag xaajatu xilaaf mën ngaa toog tey toog ne diw sàngam la di nga mu kon nag boo seetee ko nag mësër mutasaay du ñaar feeñeekuwaay ba ak kay feeñee ko ca feeñeekuwaay ba duut dafa nekk fële xam nga ni dafa ne yoon dafa nekk fële wilaay ba nekk fële xilaafa ba nekk fële diw sàngam tey moo yore déedéet <laughs> déedéet fuñ liggéey bay diggéey dañuy dikk nag bu ñu jotlante nii la jotlante lay demee moo tax ñu déparé ci xilaafa téere ci xilaafa ah ndax xaatatu xilaafa toujours mooy jot li ah ka ko jox na mooy ah, ñoom asaabu si ku leen jox xaatatu xilaafa waaye Cheikh fu mu jëlee mu nga jëlee ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam nii laa bëgg ñu dëkk wala ibaaratu buñ koy tekkee bi zilli buñ ko tuddee ker la buñ ne ko takk ndeer li am rey nii ndax ñaari biir awalan al adabu mooy tegginu maal xadrati ànd ak pay bi buñ ko tuddee xilaafa buñ ko tuddee zillu teggin bu pay bi ndaxte takk ndeer indilul ka nga xam ne mooy borom takk ndeer ba jëneen jëmm xilaafa ba mu dikkee boo ko fi tuddee boo ko fi sampee mu mel na dafa am kenn ku fi nekk te walaay ahmad rek moo fi nekk foo walaay maa fi ndax dégg nga ah dégg nga kon laa turfali ahmad saaniya kon nag bu indee jëmm ju fi taxaw kon indi nañu ahmad saane kon teggiin nag moo tax ñu ne ko jëlul amaan ñu ne ko silu kon moom xilaaf la ñu ne ko jëmm ñu dina ko sil te nag teewul nag moom ker moo ba kat moom lépp lu jot ñoom asaabu si dañoo jot ma ngaay jotee ña ngi ko jotee ca kooka kon ñu tuddee ko ker pour teggin ah te kan moo tax te moom it Cheikh dafa wax ne kenn mënta am man dara illaa bi waasitati xarasimi na nag xarasimi boobu mooy mooy mooy moo nekk rek ah yi nga xamante ne moom mooy mësër bi kon nag amaana bi buñ ko bëgg a joxe kuñ fan la jaari ci mësëru xilaaf bi wala ñu tuddee leen nag ñu tuddee ko takk ñu ne ko ker ga ko nag wan ibarat bi ci li am rey nii awalan al adab maal xadrati kamaa xooloo naka joxee janaaba seyxi code seex bi ah bañ ko waxee saaniyan ah, ci ñaareel ñu ne istindaadu naa suñ tëbbu minu mi ngi bàyyi ko ci naka ñuy waxee ci côté seex ah ñu ne sëñ tëj ci ñaari ñu ne sëñ sëñ tëb lañ bàyyi ko ca minhu waaye nag min hadati farq yi ci pays séparé mba ñun bu ñu jot ci fiya ña ngi ko jotee pays hadatu farq yi laa min hadati jam yi nag moom cheikh lu ñuy jotee ci moom ci hadatu farq nañ ko jëre waa jëre ko hadatu jam yi ndax xad cheikh mooy hadatu jam yi farqo ma nag moom dafa dikk séparé wu ak moom xam nga léegi safxo ñooy ñaar nu bootu wilaay ci deux waaye kii bam mu dikkee moom dafa nekk ci wetar ba kon nag ba ñuy jot ña ngi koy jotee min hadrati yi laa min hadrati yi kon nag lii nii fal ulaa bu njëkk ba xaadratu imdaadi yi mooy pay ba mooy joxe wal aqru martabatu istimdaad yi mooy garaat ba mu joxe dégg nga dégg kon bële ca cheikh muy ahmad yëpp ña ngi ko tuddee xaajaratul imdaad ndaxte mëdët yi moom fa lañ ko sot ka nga xam ne bu joxe jotee mooy joxe bu jo joxe mooy joxe ñëpp de martabatu istimraad yi bi maanaa garaat ba muy maye fii la may yi nekk garaat bay séddale may yi fii la nekk moom moom diggante ah, cheikh ak xilaafa bi nii la nekkee moo tax nag man laa jot dara laa yenaalu mi ni shay'un ilaa bi waasitatin xaraasim yi mën a jot ci man dara lu ma dangaa jot aras yi kon nag kële moo yore may ya wala kii mooy séddle may fa tabayanaa daani bir a kon nag anal anal anal istimdaada istimdaada naka tëbb min xadati martabati fii lañ xam ne kon nag ndakay ñun may ya ñu ngi ko jëlee ci xadatu martabaam ba waaye doo xa martaba yoo xam ne mooy martabatu ah, ah, xadratu imdaad imdaad yi xadratu imdaad ma nga tey mooy magasin ba mooy xadratu fa fa nga xam ne fa denc ko ka nga xam ne moom lañ ko séddaloo mooy martaba bay joxe tey kon ñu xam ne ñun jox yi ñu ko jëlee ca martaba ba waaye jëlee woon ko ci nga xam ne <laughs> maa dégg wax lii nii mooy wax yoo xamante ni boo ko déggee baax. doo jël nag waaw ndax lii yow mi xamul tey moom mii nga xam ne tey yow xam nga ne kii mooy mooy xilaafa kële mooy hadratu imdaad kii mooy hadratu martaba léegi hadratu martaba nga foog ne moom kële bu summee mbubbam aadama yëtoon ndax dafa jóg kële doon liggéey kii bu solee bu bu summee mbubbam aadama yëtoon ndax dafa jóg kële doon liggéey kon ba tey tey kay yow yaa xamut waaye tey la gën a a maye waaw tey jii ka nekkoon amul changement andiwul ñaar hadratul is hadratul ah, hadratul eh, ah, eh, bi aqrab hadratul imdaad kii da martabatu bi aqrab martabatu istimdaad kii istimdaad mooy ki nga xam ne ku sàkkoo ñay sàkk ku leen jox moo tax boo dikkee wax naa ko démb benn waay bëgg naa mu déglu mu dégloo fii kenn du wax ne yàlla na mooy diw may dangay wax na yàlla may ma nangam su ko defee may ga nag ma nga nekk nag ci fan ci xaaratul imdaad may ga bu ko kuñ ko ko ko jox martabatu istimdaad lii nii mooy xam nag nan la ñuy demandé ci nguur waaye nga bëgg nag euh, président dem ci buntu magasin ba ci biir la jox yooyu tam loolu loolu nag ndax gouvernement saa yi moo ko jox aswa yàlla kon nag lii nii xam ko nag mooy li am solo min hadarti matabati waxaasaa lii nag boo ko tuddee ñu tee ko zilul xilaaf ti bota nag ah, ñu ne ko <clears throat> ah watilul amaanati yaa tax na boo gisee buñ seetee ba mu nekkee ah mooy martaba bi ñu ne ko tilul xilaaf soo ko seetee nag moom mooy mutasaay ba ñu ne ko zilul amaan jaarin ma nga daw ala salma jiraa ci biir daw ci dawwaay bii lay daw lool nag lu jiitu ba yàlla amalee di séddale di joxe nii lañ taxawee di séddale joxe kenn jël seen place tey rek ñu toog ba bàyyi dem ñu ne bàyyi diw bàyyi nag tey diw mooy bàyyi diw mooy nangam diw mooy nangam ah moo tax ku am ku am koo xam ne xam nga lan mooy hadratu ijaab yi ak imdaad yi ak istimdaad ijaab ak imdaad ak istimdaad soo ko xamee doo xat loolu ndaxte soo xamee lii nii da nga xam ni ijaab fii la imdaad fii la istimdaad fii la aha waaye nag nit ñi dañuy yokk rek te li ma gën a métti mooy dañoo jumloo ay cadre tey tey nag muqaddam yi boo fekkee ne dañoo dem am cadre yoo xam ne dañ nekk seen taalibe am njëriñ ñu feral leen ba mënuñoo dëppati dañuy gën a duufal fen yi waaye nag cadre suñu amoon fulla war nañoo xool ndax ñoom bikk ci kër sëriñ joxe ak yàgg raam mooy seen njëriñ rek saa ñu mën a jot nag seen wàll mën a dem beru waaye wolof ne ah taal weex taxul ñuy xo dem ci daara. dem ci duuree xam nga bu njëkkoon boo toggee. amuñu woon daa dañu doon daanuñ son daanuñ son ah, amuñu yére nii. da ngay toog ci duuda ji ba ah, sa sa toog waaye weex tàll loolu rek dana tax nga dem ci daara ah dangaa war dem nag ba nga xam ne léegi nag war ngaa passé woon nga dem sëñ daara bi ñu kaalawoo nga kaalawoo ko waaye ñu nag bàyyi na li waxoon dem man de sama taal boo ko paree def dem ko boo ca paree ko neex dem ñun duñ ko def war ngaa dem ba xam ijaab bi ak imdaad bi ak istimdaad bi ñetti yii muy wujjóot bi ak mawjóot bi ak mawjóotaat lii doo ko xam-xam lu ñuy xam-xam soo koy waxee fii nii nga koy waxee soo koy waxee fële nii ko waxee su ko defee doo dikkee nga bu nga ne nga ne ko amaana bi ak sillul xilaafate ak sillul amaana bi ba tey ñoo bokk waxin rek yow ci sa digg-digg nga koy tourné ah su ko defee nag nga xam ne kon nag jaarit ala asalma jira fa salika loolu nag binisbati boo ko dendalee ilaa wujooni xadrati jëm ca xam ak piir ah boo ko dendalee ak fële waa saa bële bi boo ko dendalee li indaadiha fa mu joxe fële xam ngam xam lu mu joxe boo ko xoolee mooy bëri fële ba mooy lam xam la ba mu koy joxe la boo ko tollee mooy bi tey xam loo joxe taxut nga joxe xam loo joxe nag ak joxe joxe kon bala ñu ne ko silul xilaafatu bala ñu ne ko silul amaanatu kon nag lota bi nisbati li imdaadiha minay si yëpp ca nga xamante ni foofee ca moom wa imdaaduha ménage si noonu ah ba ko defee nag fan la ko joxee ménage si noonu ca ñun nga ca ñun nga moom nga mooy xam nga ñun nga mooy am leen nga bu dee ñun mooy xadratu mooy xay sut naxu bari nag ménage hiya hiya nag mooy mufrad ba xam nga buñ nekkee kon nag ki nga xam mooy borom am-am bi mooy tey hiya lu tax ñu koy jigéen ndax jigéen moom dong moo mën a jur góor nag moo mën a tax jigéen jur kon nag boo muy joxee moom ca góor gi ma nga joxee ca kenn ka jigéen nag mën naa jur juraat jur juraat kon nag minhaj sunna la ah saadana yàlla dal ñu alaaw yàlla wa iyaakum ak yéen min maarifatiha ñu xame wa maabatiha ak bëgg pay ba ah, kon nag wa min sidqi ak ñu dëggu fiaa ci pay ba wal ixlaas ak setal laa ko pay bi lii daal suñ ko yàlla mayee duñ fi nekk de oote kon lii laal ni yàlla yàlla yokkuñu ñun ak yëpp ñu gën koo xam gën koo bëgg gën a dëgg gën a sel lii bu ñu dalee ñu bàyyi mbal mbal yeeg coow coow li ak ah li kii waaye tey boo xoolaanee tey wootekat yi bu ñuy waxtaane seen taalibe yi day mel na responsable politique buy mitin day kumbal ñu ne wii wii bu sëg yi fi ne taalibe day yuuxu <laughs> dégg nga lii ñun duñu ëtt bi suñu ëtt bi loolu nañ ko taxawalee nam taxawee ci ran ci li nga xamante ni ah xam ne wax joo baat boo sànni taalibe yi xam nam ko waxee ak nam ba mu bàyyi ko ak nam tëddee ak lañ ci jublu waaye baat boo xam ne yow ma ko wax rek yaa jublu ah ah sëriñ mooy nangam waaw léegi ba nga ko waxee man gisuma fa nga ko fa nga ko nangame kon yow fu may jaar ba xam nangam de lu mu doxee moo tax toujours ah, boo demee ci ah, Cheikh Ibnul Xayri gaa yi koy ooteel tey moom daf ne al kadmu xaatimatu taaruf kadmu mooy xaatimatu taaruf yi mutlaqan ak lépp nag biñ dikkee bi ci kadmu te kadmu mooy xilaafa mooy ba ñuy xàmmee quantité. ba xamee xol ba ci kër mu foofu lañ jeexale ah wax wa aynul xamaa moom sax kër moom aynul xamaa la aynul xamaa mooy loo xamante ni mu ngi nii nag yaa ngi koy xool xamanum ne wa alal muluki fayta ko ba mu dikkee dafa dafa balaamee mboolem munoo fi munoo ko raaq xamee toog fi kenn ci moom fii ci kër nit fayta loolu boo demee laaj la nit ñi la ñuy firi boo si ko si ko ba mu dikkee moom kër dafa summi garaat yépp tey garaat yooyu ko tey kan moo joxe tey kan moo mën a jar joree jote ci wilaay bi te jote ko ci alasim yi ndax ñaari alasim am ne kon nag foo jëlee beneen koo xam ne mu nga dikk ci gannaaw ah, ah moom Cheikhul Khayri mi xam ne lii la bind lii la wax alkadmu xaatimatu taarifi mutlaqan wa aynul ama wa alal muluki fay fay tëx ah kon nag lii nii damaa bëgg danaa fi yaat woywu sax pour ñu dégg ndaxte xam nga nit ñi da nga am kuy campagne nga foog ne yow lay campagne te boppam lay campagne ndax wax na ni ñëpp tey xamuñ xamuñ xamuñ jiw man maa ko xam kon nag gannaaw diw kan la man ah ah waaye gone ay danga xam nga ay gone fi côté moto waaye gone xamul lu xew ni su xamoon luy xew ndëgg sërëx bi koy xaar moom mooy ndëgg kon nag ndëgg sërëx la bi ah ndëgg sërëx la parce que da ngay dugg da nga dugg ci kàmb koo xam ne doo ci mën see génn ndaxte nga foog ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy borom ñi yàlla ràññeel nekk fi tey xàmme xool gis ngay wax ñu yow li ngay wax ay du noonu xam nga ne lu yàgg yàgg da nga wér ndaxte keroog bu ñu tuddee ko rek nga xam ne li man li ma waxoon lépp ndaka sa seet sa taalibe yi seen bopp ñooy doog a xam ne ci nii lam doon wax du noonu ndaxte yow boo toogee tey ngi diggi yow lettre mu ci leen gaa yi mi ci paasu vingt quatre bi ak vingt six vingt cinq bi boo dikkee Zikri moo fi leeral lii ah ki xam ne mooy xadratu imdaad bi ak istimdaad bi am mu bàyyi benn ci kaw ndax boobu du suñ suñ kii mooy nga xamante muy ah, ijaab su ko fee nag nga dikk tey nga dikk tey nag tey nag bàyyi moom pare na ku jëlee fii ñu ne seexul xëy seexul xëy gannaaw ñu ne kon nag Cerno As ñu ne ku ci tegee ñu ne Cerno Omar ku ci tegee ñu ne kan ñu ne ah xanaa ah sëriñ bi Njaay buur Njaay dégg <laughs> nga ah dëgg-dëgg yàlla war ngaa seetaat sa bopp la waaye lii boo déggee nag yi nga xam ne koo xam ki bu la waxelee yow xam nga ne kon nag soo bëggee ñaanal mayal ñun pay ma pay may ma ci lañ toll waaye pay maa ko maa maa ko ngardaaj maa man maa man maa ko yore cheikh ba mu joxee kam ko jox ka daf ne kenn munta man am ci man toq ilaa bi waatil arasim ali arasim yi xalifati nga ne maa xalatu ba di saaw def mel ne xalif sama gannaaw moom kon nag moo tax bàyyi ba mu dikkii daf ne naani nooboo xanaa fi ismi allahu laa yaqtoo ma dadakum cheikhul kayim mu ne ba ko bàyyi waxee waxul jublu ci misiri misiri kese ndax te ñëpp da da ëtt bii inaa jaalnaakum xalaa'ifa yéen ñii booba ñi nga xam ne ñoo mën a ñoo mën a wuutu xilaafa bi ci jot li ñoom lañ tuddee ñoom moom kàddu ga def nañ leen ngeen di ay xalifa xalifa def dafa am xalifa saahir ak xalifa baatin ak xalifa baatin baatin yépp benn xalifa bi mooy rek la yépp léegi nag nan lay defee nag kon xilaafa nga xam ne mooy xilaafatu rasul bi ak xilaafu wilaaya bi ak xilaaf bi nga xam ne mooy xilaaf arasimi yooyu yëpp bañ dikkee nag dafa am nu ñuy séddale gis nga bañ dikkee bañ jëlee bëy amal ko affecté ko ci côté bëy yow yaa ñuy meewam bëy bokk a meewam xar ah acca yaa ñu fital nag yàpp bëy ak yàpp xar bokkuñ yàpp ganaar a wu bokkuñ kenn ku ne yow laa affecté nga mu ci lii ndax seen yéen xilaaf nga jaaw jaawale na déedéet kon nag xilaafa gii nga xam ne jaawalewul man la koo jaawal lay jaawale ba bëgg nag jël dugal fa nag place boo xamante ne bokkuñ ci xanaa nga jël ñoo xam ne yow wuñ xamul loolu neex waxal nag boo wax kon nag misile ngi nii yàlla yàlla fay ah maawon misile alhamdulilah maamaana xaasal ism waaw luy maanaam tur bi alhamdulilah tur bi lu luy maanaam wa maa kayfiyatul fanaay ana naka la ñuy fi ismi saat waaw lii luy maanaam tur wi nan la ñuy jeexee ci ismu saat tur jëm xam nga day wax ba bàyyi dafa il faut que jëf ci eh, saat <laughs> dégg nga ah jeex ci ama ana fan aarif indi man fa nen ci saat man fan xam nga léegi ñoom dégg naa waa ñi nga xam ne wax nam ba nam firee nim lim xam nga li gën a daal seen wax jël waxi bàyyi firee ko foo xam ne sa sa bëgg-bëgg nga ko firee firee ko di ko bàyyi wax waxul ne bàyyi waxul ne sama prix bii nii xam nga mel ne prix bi nit ñi xamuñ ndëgul nag ñett ak ñeenteel waxu bu bien bi loolu xaq xaa école la wax mooy prix bi waaw léegi nag lan mooy maanaam tur ab naka la fanaaw fi ismi asad ba da sulu kilaqaay ndaxte gannaaw balaa nga ci soobu balaa ngay fanaaw ci tur dangaa soobu ci xaqaay kii ba mu jeex loolu luy loolu luy maanaam tur yi ak nan lañ te sooboo gannaaw boo par noo cay fànnaaw gannaaw boo sooboo xaqaay ki ba mu jeex déglu de léegi da nga ca war a fànnaaw ca ismu saat ba kañ baat boo jeex gannaaw boo pare ci tulukuna kañ wa maa maanaa taala ah wala leen wala hoo yàlla moom alhamdu lil uula wal aaxira wa salaam muhammad bi laa ilaaha illallaah héey moom duñ ko emale fii ba subaab inna lillahi wa inna ilayhi <laughs> dégg nga dégg nga ah laaj na lan mooy maanaam tur nan nga cay jeexee gannaaw boo sooboo ci xaqaayiq waxuma nga dikk ci taalibe bàyyi yi nga xam ne ñu ko tuddee diw diw diw diw xaqaayiq laa la wax dañ cay jaar ba jeexal ko takk dikk nag fànnaaw ca turam ah waaw léegi nag ah yàlla na wan xoo moom moom moom laaw alhamdu fil uulaa ci uulaa wal aaxirat moo ko moom de <laughs> waaw dëgg la wasalaamaaleykum misiri waaye lii xam nga mu muqaddam lii moom lañ ko war na laaj muy tontu waaye yow dikk uutu gaaya ba pare ñoom nañ leen daal yow da ngaa sàcc si nag déglu li ma gën a métti mooy foo déggee ñuy wax buñ pare dañuy jël wuyu bàyyi bàkkee ko seen waay moo fi nekk de jël wuyu bàyyi bàkkee ko seen waay au lieu ñu jël nag ñoom seen wuyu sëriñ ba wuyu bàyyi ah kon nag misiri bi lii lañ bëgg a wax maanaa hasal ismi lii maanaa tur yi ana saata naka lillaahi laa ko waaye it kat wallaahu laahu ci boppam li saati saatoo ko moom ñoo moo de is <laughs> ki de damaa bëgg déglu wax de tur ana al isma ana saata lillahi wallaahu li dëgg la de dañoo moomante gis nga buñ nekkee ca fële maa la moom waaye buñ nekkee ca fii yëpp yaa moom mbaa di wax dégg nga <laughs> buñ nekkee ca fële maa la moom waaye bu nekki ni fii yaa ma moom ne ma luy loolu <laughs> dégg nga xam nga léegi nit ñi fañ teg saatu am na saatu taxawee ak fañ teg laaw na laaw taxawee moo tax mënuñoo dégg luy saatu ak laahu saatu ak laahu kenn ku ci ne bokk na xàqu dara saatu saatu la laaxu laaxu la buñ nekkee fii taxawal ma ne saatu ngay laaxu buñ ne fële nga dëkk na may may saatu ngay laaxu dégg nga de ndaxte kii day nekk ca biir ki nekk ca biti ka biti ñu ne ko saatu ka ca biir ñu ne ko saatu ka ca biti ñu ne ko laaw bañ dikkee nag ka sàngu woon ba ca dikki nag biir nag bu dikkee moom moo dikkee ne saatu laaw génn ci laaw daal di génnaat moo tax na nga gisee Omar ibn ca jaay rasaayil ba mu laajee bàyyi kàddu gi nga ni da nga ko dégg mel na yonent moo ko wax te mu xaw koo jaaxal mel ni yonent bi daf ne ko ya la yàlla <laughs> anta abu ruhaniyati waaye wala ñu jismaani nag lii nag man jaaxul ma yàlla laahu amul lan yi di wala ñu ñu bëgg na koo kole moo tax lii nag kon ku jur kenn jur ko mu ne Omar ah da ngay xam nag ne ñetti ana kenn ku ci ne mën ngaa jël sa ana ak morom ne ana ban ban ana uluhiya ana nubuwa ana wilaya xilaaf moom bokk ci ana yi xilaaf bokk ci ana beneen affaire beneen affaire ah, ah. <laughs> Eh, xilaaf xilaafa bu ma waxee rek bu kenn jàpp bu ma ne xilaafa dañ xam lu xilaafa gi tax may wax xilaafa patron la ñoom patron la boo xam ne ñoom ñetti naa yu ku ciy réglé ci moom ngay réglé kon nag moom damay bëgg a jege mooy sëyi du naa ba moom mooy jege <laughs> ah <laughs> dégg de léegi nag mu ne ko waaw mu ne ko fii nag damaa bëgg li may wax nii gàddag yi dafa métti trop trop trop yàq yi métti trop trop ci dara lii misri wax na ko waaye wax ji bu ma la ko firle nii ko fa nga ko mën a déggee doo mën a léegi nag mu ne ko ko mu ne ko fii nag wilaayatu moo ne ko nubóotu kon wilaayatu moo jël anaat nubóotu wax ne nu wilaaya ne yow nabi nii nag fii bi nekk yaay sama àbb ci ruuxaan yi waaye buñ demee ca biti yaay sama doom maay sa baay ci biti waaye mu gis maa ni buñ ci demee ci yaram sama doom ngay doon ah mu ne ko d'accord naa kay loolu nag moo tax boo déggee foofu bay nekkee ca biir ka doon bàyyi diw la mooy nabi bay nekkee ca biti ka doon wilaay bi léegi nag kon nag fa nga déggee ne kon nag ah saatu lillaahi wallaahu li saatu saatu mii laahu xam waaye laahu mii saatu xam ñii lañ nekk rek ina saat lay wallaahu li saat ah kon nag faxaa foofu moom sifatuwaa moom mooy sifaat moom male kële mooy sifaam waxee bii saatuwaa moom moo nekk saatu bu si gën a sifa ak saatu kon moom bële moom laaxu moo nekk de sifa ba kër nag de saatu ba kon nag mu ne kon nag foo woo sifa taa moo nekk de meloo waaye moom saatu saatu woo moo nekk de saatu moom laaxu kon laahu lañ góoral saafuñ jigéen la ko kon nag moom laahu kii nag mooy sifaam bi waaye këli moom itam moo di këri saato lii nag waxaasaa lii xoo maanaa muhammadu lii ma maanaa ñu ne ko kuñ sant ka kuñ sant ka la jëlee kuñ sant moom nii ñii kon nag au lieu ñu ne ko ñu tuddee ko turu saako wële ñu indil ko weneen tur bu bokk na turu wañ tuddoon fële ah kon nag wañ tuddoon fële ba nga ne alhamdulilah ba dikkee ba delloo leen nga joxante leen nga jot mu joxe leen nga yi na nga war a joxante leen yi ñu ne ko muhammadun faatal ismu tur wi muhammad jamaa boole na bay na ismi saati wa ismi matraf dëggal waaye ñaari ñaari tur la la làngale moom Muhammad bii daf ba nga ko waxee ñaari li tur la ëmb ismi saati ak ismi matraf wax na dëgg ndaxte kuñ sant ki kuñ sant ki mooy kan mooy kiy jëf jëfi cant kon nag jëmmi cant ja kan la mooy ka jëmoo cant ga kon nag kii dafa dikk moom jëmoo cant gi jëfee cant gi moo tax yamaloo ala daaw da yéen da ngeen di jëf cant boobaa cant duñ ko tuddee cant duñ ko tuddee sukkur mbaa yéen a nga dégg li ma wax damaa bëgg fii tarxees yi jeex takk takk takk takk kon nag Muhammadun faasa ismu jaamion bay na ismu saat yi wa ismu martabati dëgg la de mboole Muhammadu ñaari tural fa daje ah ismu saat ak ismu martabati ah moo tax fa saayiru hoo bi ba mu taq ñu ko xaree mbina di ci cant ga wa baat noo biiram ba mina laay ñu ko bàyyi ci laab ah ah kon nii la tuddee kon boole ko Muhammadun kon boo seeti ca biiram ma nga bàyyi ko ci xam soo ko seeti ca bitam mi ne laay mi ngi bàyyi ko ca la moo tax mu nekk ñaari ñaari làkk la bon ah kii nag <clears throat> moo tax dëgg dëgg dëgg ni ni mu wéetalee nag yow mii nag boo bëgg a wéetalee itam da ngay taxaw di jëmi muhammadun duñ ko tuddee nii rek muhammadun mooy kan taa yoo taxawee taxawaay muhammadun boolante nga benn foofu nga xamee tawhid nag fii nga nekkee nag kennal kenn mooy kenn ci biti ndax sa saay rek sa saay rek sa baat ndax ñaar lañ xool nag boo taxawee fii nag ki ka xam ne mooy jëmmi Muhammad bu nag kenn dong mooy Muhammad baat nam min alhamdi ah ah nga ni nag fële fa saay roo mustaqul min alhamdi saay laa biti laa bitim ba ñan ko xalee ci cant ga ndax dafa jënd ci cant wa baat lay su ko defee kon nag boo demee ci dawaa irul dawaa irul euh, nga xam ne mooy baatinam moom mooy allah ko fii nag ah dafa boo taxee boo gisee ah, ma bàyyi fële am naa loo xam ne buñ déggee fii buñ ko tekkee day daal di leen dafa am loo xam ne bu ñu ko tekkee te aktuñ ci fi mu tekkee koo du sotti kon nag lii nag ah moo tax seetal bàyyi eh, seetal eh, eh, bora bi kii bëddi ah, wa suqaloxoo min ismi lii jëloxoo wa sol arsi mahamadou waxasa mouhamadou kon xam nga dafa mel na bee wëy na ko waaye nag ki nga xamante ni mooy jëmmi alhamdulilah kay waxul ko mu ne borom xaras mooy mahamad kii nag mooy muhammad borom xaras nag booba kan mooy kan mooy numéro numéro un kan mooy xaras bi nag mooy numéro deux kon nag loolu la bëggoon wax nag kii nag fa saay wa baat doo min laayi nabil qubayl al kawn wa xadrabahu fasal ali saato asil bi sal xardi laa ilaha illa allah damaa bëgg wuy yi mel ne que kenn dugg di ci dugg di ko firi te xamuloo fam taxawe léegi nag bi nekkee fii nag lañ ko tudd nabiyu nabiyu mooy ah nabiyu muhammad ak ba xam ne ak rasulaay ba dafa nekkaat ci beneen côté kon mën nañ indi nabiyu laay ak nabiyul xaq dafa nekk ñaari faas kenn nag bii moom dafa nekk dafa bennoo dafa nekk benn ak rëbomb moom nabi bi xubaylal kaw ni mooy ba ñu amal nekk ci fii fekk na mook rëbboom ba benn lañ ndaxte saayiru mooy baat ñu baat mooy saayiru kon nag lii moom boo gisee moom moo gën a fort ci jàmm jàmm nam wéetalee kenn wéetalee ko moom nag dafa dikk moom ah, jël baat jël saayiram sànge ko turu saayir wa jël baatin sànge ko turu waqal turu saayir la tey baatin ndaxte allahu saa yi la de waaye baat bi ndaxte boo dikkee ki nga ñu ñu ñu tuddee laaw ak laaw bokkul yàgg naa ko wax boo gis ñu mën a dàq laaw laaw nga dem ba kon su fekkoon si xàq moo nekk kon kenn du ko dàq waaye laaw beneen dañ ko tuddee ku tuddewul ba nga dikkee nag ñu xamuñ laaw kañ ko tuddee mu ne hee ki ñu tuddee laaw laaw laaw huwa la laa ilaha kon na huwa la huwa moom nag <laughs> moo tax nag fii ndax ndax eh, gars yi mas ñoo di xus yàlla ba dikk fi ñun lii lañ xëccoo tey ñun xëccooñ toog palte diw moo jël place bàyyi diw moo jël jël déedéet ñun xëccooñ palte yi ñun xaqaayiq la ñu xëccoo moo tax Cheikh Wóor Kay dem ne bu leen xëccoo sóore yi xëccee leen maanaaya waaw xanaa nit ñi déggul kon loolu ñun xëccoowuñu photo yi de diw a gën a rafet euh, toilette déedéet ñun fa ñuy xoocoo mooy chef yi nga xamante ni mooy boo ca gañee toog ci chefu gouvernement waaye boo ci toogut da nekk de woyaat rek doo dem bukk nu bay na biir xubay la kaw ni ba ñu nekk gii waxaadara boobu dafa benn ak ñoom ñaar na bañ nekkee footal ali saab saab nag di ko julli yi nga saab ñoom ñaar hamdu ba ak laahu ba bañ benn xoo ci moom nag falasaat wàcc na moo tax na ñoom ñoom ñii bañ nekkee seen lig seen liggéey ba kële ne ana kële bañ dikkee ñoom ñooñ seen ana ya léegi nag ba mu nekk benn ana la saat bi kër waa kon nag ni kay kay ma ndar képp leen mooy sëyi du naa sangak naa ak hmm, muhammad ga sangak naam ga ndaxte muhammad gi moo boolante ñaari tur sangal naagu ba mu dikkee na fekk la ko ak moom ñam ñaari gaay bi mu ndar képp leen nag ah kenn du ko tudd moom nag nañ ko ma bàyyi loo rek ba ma ko dal fii ñaar ba ma ko dal fii ay ati ati yàlla mi ngi nii soo bëggee xam koy sangu naag gi nag demal nga toppatoo xam ko nga moo gën nga toppatoo ay bagage yoo xam ne bagage yi fóo la doo dem fenn nabiin ku bay leen wax xajara ban nabi nabiyullaahi wala dafa dikki nekk benn wala du ñaar du ñett saahir batinam ga saahir ga mooy bàttu bàttu ndaw yaa ngi nii taxaw sa biir ak sa biti tax am nañ jiyoo bay booy def li nag fa tara ale saat foo la saat rek fii la saatu dikk rek julli na saatu mi nag mooy salaatu bi saatu boobu mooy jëmi salaatu salaatu bii nag mooy salaatu nag ba nga xam ne mooy daw tey ñoom ñaar boo tax wat safa ak safa ak wetar ba dikkee nag alhamdu ba ak allahu ba bañ dikkee ñoom ñaar nag ca la saatu dikkee nag julli seen kaw bañ jullee nag léegi nag saatu rek ah mu nekk nag ah léegi nag asim bi sal xarat ndaw bor bu rafet léegi moom jël na bagaasam moom nabi ba jox ko nag ah hamdu bi ba mu ko ko joxee nag ñu fayee ko ne ko jëlal saatu saatu moo gën a rëy li ma lebal li ma may jëlal bor jëlal saatu asin bi ngal xel ah wala liman aqaamu maana muhammadin xaqiqatan ilmin asamahu ah wa ma jëla wala alima bu xamal al aqaamu gaa yi waxuma nit ñi de góori yàlla yi laa wax Mm-hmm. suñ xamoon lan maanaa muhammadin xaqiqatan ci dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. muhammadun suñ xamoon dëgg lan mooy muhammadun suñ ko xamoon xaqiqata ilmin dëgg dëgg xam xasamawuñu fonk ko mm-hmm. wama jadaa ñu dal ko teral waaye nag xamuñ ko kan mooy kuñ sant ki nag kuñ sant kii nii ko xamoon ñoom góor yàlla xamul ne góor yàlla yéen ñi ngay jot foog ne ñoom ci euh, njool màkk lañ jote te xamul ne Mouhamad mii ci la ñuy jote <laughs> ah léegi nag Mouhamad mii nga cee jotee da ko taggee keneen walaay suñ xamoon nag maam maanaam Mouhamadu kon xasamoohu wa ma jëf ah kon nag fa saayirul Mouhamad yetti foo moom masaru ismu martabati mooy feeñu kaay ismu martabati dégg nga ah sëriñee kaay is martaba moom mooy saayiru Muhammad ah is moom mooy kan da nga ko xam si xam nga mooy laaxoo xamu ne këri ismu sànni kii is martaba la kon nag kii nga xam ne mooy Muhammad fa saayiru Muhammad yetihi huwa masaru ismu martabati alif yaa xam ne hummida ko sante turu màkka wañ ko sant defale xam mooy bii nii mooy maanaam muhammad yi wa baat na biir ba nag koo moom masaru ismu saat nag ismu saat martabaam ba moom mooy baat nag ah tur bi turu muhammad bi baat nu masaru ismu saat al si yàq la koo moom al muhammadu ah bii fii nag mooy turu mësalu saat bañ ko santee xee mooy bàtt ndax bañ koy mën a sant xëndu saati da nga koy defee ca saatu sukkuru nga defee ko ca martaba ba ah kon nag xamitu ilaar xarsi fii xëndi saati yi ba ko bàyyi mbay xel ci turu ah xilaaf bi lama kuntu mahamor ma nekk mahamor nekk xam dan il fati naf samari fi moom mooy loolu sa maarifa daf lay may ba nga xam am nekk nag nga mën a xàgg ci maqaamam nga def nag xam du ismu saat nekk maamo nekk xam dan kon nag nii laa wax dama ko wax da ko waxaat kon nag fa saayirul muhammad yetti huwa masaru ismil martabati moom boo bëgg a gis ah masaru feeñeekuwaayu ismu martaba xoolal Muhammad alasi humida ca lañ ko santee ndax boo ko bëgg a sante yi ci mësër bii ngay seet maanaam moo tax wala kum bi rasulaay usatu roy leen ko ni mu taxawee moom Muhammad bii bëgguma beneen royuwaay ngeen roy ko lu mooy Muhammad yétu bi ni mu taxawee ca bitim ku bëgg a taxaw nekk sama jaam taxawal ni mu taxawee kooku kon mooy jëfekaay wa baatinu waa baat moom masaru ismi saati al muhammad bii kaa xam ne moom lañ sant ka xam nga muhammadun ak muham kuñ sant ku kuñ ak kañ sant ka dégg loolu laa bëgg a dégg ku sant ak kam sant ka kam sant ka moo nekk ci ka sant moo nekk ci biti mbaa da nga wax rek ah kon nag al bii mooy kañ sant dégg moo tax jaaral ma joor ñu nekk ci kanam moo la xamal kon kële yokk almartabatu alisi humida wa baatnahu baatnahu masaru ismu saati alisi hum huwa humida muhammadu al muhammadu bihi kañ sante ca moom loolu laa bëgg nga dégg nag kon su ko defee soo xamoon dëgg dëgg dëgg luy muhammad buñ ko waxee hmm. wallaahi lii doy na liggéey xam nga ne waaw ku bëgg a toppatoo muhammad bii ak la fa nekk da nga tala dem ba xuloo xeexoo ak xaccoo xaddina yow dama am lu la suur këll këll këll këll sa baatin dafay fees sa sa saay sa saay fees nga rafet lool dégg nga ndax da ngaa sangu laaxoo la sang nag ndax ci laaxoo la ñu sangoo ba nga seetee nga ñëw nag di jëmmi Muhammadu bi nga nekk nag ca biir ba de lii nekk ca biti ba de lii leeral naa la loolu yaa laa joon nañ cay fannaaw amal fànnaawoo naka jeex nag fil ismi naka ñu ne jeex nañ ca trois bada suloo kil xaqaayiqi gannaaw boo soobee ci ay dëggi dëgg moo tax xaqaayiqi boo ko jëlee ba ko jox ay nëbbi yoom yooyu déedéet xaqaayiqu laa ko ci fa mu nekk du ci génn su fekkoon dafaa génn man ñu jëkkee ñoo ca jaar ci xaqaayiq ñun duñu am fu ñu jaar ñu ngi dikk ji dikk ci ay fi wekkal mooy masaayil déedéet a la yoo xam ne ñi ci daan jaar fu ñu ci daan jaaree ba setee ca seteekaay ba ba tey ma fa des soo te jaar doo mën a am fanaw ci fil islam sansewul alaaqaayku laa tatabadalu dinaa ko indi ci xaayida bi nga xam ne moo rekk jaayil maan bi dinaa ko indi ba nit ñi xam bañ jël xaqaayika dina mbacc mbaccee ab ab asaraat dina mbacc mbaccee xamul luy asaraat ak luy xaqaayiki da ko mbacc mbaccee waa naan diw sàngam dee def asal du dikk ñu ne ko diw sàngam mukk asal ma ci asal nga ba tey jógu ca xaqiqa ma ngi ci xaqiqa ma ba tey jógu ca kon nag soo bëggee dellu ca saako ah demal ca ah, nga xam ne mooy asalaat bi soo bëggee ci xàq demal jaar ci xaqaa'iqi ah soo bëggee dem ca di nga maam ay demal jaar ci nga xamante ni mooy xam ne mooy rasulullahi nii ngay jaar jaare de bam jeex tàkk na ah, kon nag lii laa la bëgg a wax aman waxaasal ismo baada sulooki xaqaay tuumu noo koy defee noo jeexee ci tural takk takk takk takk an yusaayida moo janoon xaasal wujjóot jëm wujjóot bii mu jëm mu gis ko ah mu gis ko nag saata saati jëm wujjóot bii bii mooy saatoob saatu bi saatu ba bii mooy saatoob ah xaw ma nag wujjóot bi kan xam nga ah naari comme damaa dégg bëgg ngeen dégg yow nag gannaaw boo sóoboo xaqayiq mooy nga jëloog yow mi janoon nga janoon waxuma dégg de waxuma wax de dangaa janoog xaasal wujjóot wujjóot bii saatu saati saata saati saati mooy saato saato moom wujjóot bii nga ne kii wa kunhul xaqayqi boo déggee kunhu xaqayqi nga xam ne wujjóot bii taxaw mooy kunhu xaqayqi su ko defee soo demee ba janoog loolu waxuma ñu waxal la ko de nga dégg ni ko ustaas gi waxee nga dem na nii la déedéet ndaxte li mooy li ma la wax féeg déemuloo ba dàq xaqaayiq ba nga xamante ni doo fa gis benn xaqaayiq ba nga leen dàqee doo leen gisati mukk mukk mukk mukk mukk da nga leen fi tegoon muy jaaruwaay ba nga paari ndaxte ah boo gisee xaalis yi doy waar yow ba nga demee ngaa dàq xaqaayiq foog na jigee nañ ci fekk ngeen fa tëdd pour keneen kuy ñëw bëgg a jàll waaye nag loolu bi gisa teew ndax yow liñ bëggoon ceew jeex na mm-hmm. nga jaar fi jàll mm-hmm. xamatuñ ceew soxla mm-hmm. moo tax péeb yàlla comme mu jeexal ceew ay ci kanam léegi waaye sa doom ba nga koy nàmpal ba mu feet léegi nag da nga bëgg mu arrière dikk ci dikk ci wéen da <laughs> day day continuer def su ko dee demal nekk leneen nga xam nag wakkun xaqaay ke fa yàqulu soo ko xoolee nga nga xone waa ana haatal nga ne jaam bii xam nga dégg de xam nga saat saat la ko tudde tudde nga xool ndi ko jaam bii xëy bu ilaa yi kii mooy xëy bu ilaahum laahu mooy jaam bi nga ne wa xalbul waraa jaam bii mooy xalbul waraa nga ne wa saat saat tëjalati

ba xam ne mooy kunul xaqaayiq ba xam ne jaam bi mooy xëy bu ilaahi ba xam ne kii mooy xalbul wara ba xam ne koy mee xam ne saatu ko defee xam nga kon mm, ay noo janoo nga ak xam ne mooy xëy ki nga xamante ne mooy xalbul wara kenn ki nga xam ne kii la saako tëjee li ñaata du juróom juróom yii boo ko defee ca nga fanaaw ci tuba nañ seet nag ba xam ndax li am na lii nag su demee ba gis ko nag pour war rek la fi gisati du gisati dara dara dara dara ah lii nag xam nga ne waaw lii est li ñuy wax ni ci ci li ci ci ci yi. ndax li man na laa puus ba nga àgg ci loolu lii déedéet fii moom ah ren di di beneen tarbiya mooy ah tarbiyatu baari wu tarbiyatu baari boo bokkul tarbiyatu bi nga xam moo def ci pays yu laaxu ak ci rububiya bii tarbiyatu baari ci ngay dikkee nag tarbiyatu baari nag faqtuloo anfusakum sa bakkan bi feeg benn cëru àddina mi ngi des sa bakkan mën a def fii doo mën dugg fii. ah kon nag fa tooboo ilaa baari ukum moom moom ko wax ña bëgg a fanaaw ca turó lañ leen fa tooboo ilaa baari ukum ñu ne waaw nu ko defe mu ne faqtuloo anfusakum kon nag rey gu njëkk gële bokk nag rey gii na gis nga rey gële tabaski moo defoo màkk ak tabigu wax tabaski wax la yaa ko defee ca baytul atiq fa ma iloo ilaal bay si xaari fii ñoom ba ñuy tabaski man nañoo nekk fii ci Sénégal rayee seen tëbët ci baytu atiq ñi nga xam ne ñoo xamuñ man nañoo dem ba màkk ñoom ba ñu rayee tabaski lañ rey waaye rey ñu baytu atiq ndax boo ko déggee mooy koo xam ne ba nga ko tarbiyaa ba rendi ko bakkan desatul ci moom kooku mooy tabaski boo xam ne yaa ngi ko rey ci man xam na atiq mooy taal yoo xam ne libéré nga ko gore nga ko waaye jaam boo xam ne dem na ba àgg fii ndax da nekk jaamu kenn pour la pour xàq bi benn jaam booy mooy atiq tant que yaa ngi nekk fii di jaamu keneen yow yaa ngi nekk moo tax njaam yi dañoo bëri njaam njaamaan nag sax ñun ndox bu njaamoon jaamaat waaye lañ nekk soo nekkoon jaamu laaw bi sax xamuloo na mu doone waaye nga nekk jaam jaamaat nga dem di jaamu ah <laughs> si nag lii nag fa yarjoo day dellusi nag ilaa saatu jëm ca saatu ba min hay si yëpp fa saatu saatoo xee nag soo demee ba am juróomi taxawaay yi ah xam nga day mel dils nga xàmme nag saatu ah ménagiya rujoo an del goo xam ne taaman dafay ma sëkk nag laa yarifuloo sababan xam lu sabab man day fi ma del si nii fi ma demoon bàyyi ko fi del si bi man xawma fu ma fi jëli ak ma fi del si at xam nga touriste buñ la buñ la buñ la sàccee dañuy takk sa bët yóbbu la fañ la yóbbu ah buñ paree dañuy takkaat sa bët teeloo la fañ la bàyyi yow xamuloo fa nga demoon ndax xamuloo ba nga fay àgg fii yoon wi nga jaar ba nga del saatee ba del sa xamuloo lu fi indi yow ñoo la jàppoon man kay xamuñu ma jàppoon waa léegi nag fuñ la yóbboon xam fuñ ma yóbboon waaye ñu la dellu si ah man kay xamuñu ma dellu si man damaa toog rek gis ne man tey del saa naa ci dëkk bi <laughs> ah xaarif nag loolu lañ ko defee dañ ko def kidnappé xam nga kidnappé waaw ah, xaarif dañ ko kidnappé ba mu dem ci saatu del saat xamoon nag lan mooy soow wala atan man laa lii cosaan lii xama wa fi nihaayati buñ demee ca yemookaay ba buñ demee nag ba mu demee nag ba mu xam nga léegi day fàttali yoonu sa ba ko jël woon wonee mu nekk fi sunu maatin salaasa xam nga moom mu nekk ci ñetti lëndëm ba ko jënoo ba xëy ca tefetu géej ga ah léegi nag ñu dee ko benn ker nag moom laab ndaxte yaramam yi taamul jaww ji kon nag fan la ko jën wi jaar na ko ak fu ko jaar jën wi ko mënu ko wax ah ma wan jën moom ma wanoon ci jën yi ak wanu jën moom ma ci biir jën wi xam nga lii yëpp kon lii ci bu ñu ci maarifa boobu nga xam ne mooy jën woowu tax na nekk naa ki te kat ñu ne fii zulumaatin salaasa ñetti ñetti lëndëm ci la nekk waaw ñetti lëndëm yaa ngi dégg léegi ñetti ñetti ana ana man man lëndëm la man lëndëm la man lëndëm la man yaay kan man man maay man yaay kan maay man yaay kan maay man waaw man yow man xaw ma kuy man de man day maay man ndax lëndëm ndax kon yoonu sa xamoon na lëndëm yi ah xamul de man rek la fa nekk la fa nekk na ñetti man <laughs> moo tax wallahi dañ xam ne gis nga lii képp koo xam ne yaa ngi koy daw da nga da dëgg ci ndëgg sërëx dew ak ku la topp te kenn du li wala ndaxte ma neew la wal ne boo xam dafa yore paaka man ne man man doo nga maa fi nekk dé da ñun dañu rey rey nañu ñoom yënduwu leen sëriñ ku gëmul ci sëriñ bi xéeféer nga léegi sax léegi nag ku la jàppee xéeféer man ko mën ko ginte ah moo ñun nag xootikat yi noonu la ñuy jàppee waaye jum nañ de su ko defee wa fi niayati yu saydu an na xam ne da nga xam ne an ne laxoo moo moom alhamdu hamdu fil ula fële wal aaxirat ak fii boo defee lii ba def li mën a def nga xam nag na saatu saatooxee nga dem ba xam nag ka moomoon xam du ca fële moo moomaat xam du nii waaw fii nii fan la xam nga ñoom ne xuuraa ñu di ci boole waaw aaxira bi nag fan la ko boobu ko kon fii amdu ci xamdu aaxira bi xam nga uulaa dafa am xamdu aaxira tu xam xamdu ki nga xam ne moo moomoon xamdu uulaa ba moom mii la ki moom xamdu aaxira ba moom mii la kon nag aaxiru awalu kan la aaxiru kan la ëmb bañ moom kan la loolu laa bëgg nga dégg nga tekki laa tudd aaxiru kan la awalu kan la xëndoom ba kan la ah dégg nga aaxaru kan la xëndoom ba kan la kon nag lu tax xëndu nekk fële xëndu nekk fii te benn xëndu la rek la lu tax nag aaxaru nekk taxaw fële sa awaru nekk fële aaxaru nekk fële awaru awaru te bañ bokkee bokk ñaar tur yi kii nag ba mu nekkee fële tur am ko tuddee ca bi waaw lu waral lii jar naa sedd te kenn moom nag ah la xëndu ko la xëndu gi kon nag fa tarafaani ñaari côté yi uddi fataa dañ leen wéet lil ismi ca turu ñaari côté yi dañ leen wéet ca turu wal aw sataani ña ca digg ya ka ca digg ba bàq yaa def nañ alamakuma ci naa xam ne dañoo nekk xale loolu mooy la mooy ba nga ne ah, ma bàyyi loolu sax <laughs> ah oh, ah bon pare ñu waaye lii xam nga lii dafa am loo xamante ni eh, soo ko kii waaw ndaxte ñoom ñaar ah, bële arab dafa indi li wax ah xaw waxi waxi na kii tarafiya ak awsataan yi ñaari tarafiya udi feta lil ismi wala awsataan baqiya ala ma huma alayhi dong na wala laa rekk nag asalulaay ñaan man misri an yuhdina gënuñu jameen ñu ñëpp aqooma ma ki la gën a jub ci yoon maa ngi koy ñaan yàlla yàlla gënuñ ci yoonu gën a jub ci yoon ba duñu hooteel kenn maaqaam boo xamante ni sama xam wa aada sabir ak fu gën a jub ci yoon waan yoo fiqa naa ak ma ñu sens ñu am wa yaa ko ak yéen ñu am sens bu ñuy wax ñu wax nañu war a waxee fil aqwaal ci wax wax yi wal afaali ñu am saasu wax ju jub am saasu jëf jub wal xarakaat ak yëngatu wax sa kanaat ñu am saasu yëngatu bu jub ak dal bu jub wadum naa ñu sax bi ku li xayri ànd bépp yiw wax afiit ak jàmm wa sural ak kontante ah suubati seex ñu ànd ak sëriñ ba nag wa xidmati ak di ko liggéeyal wala ixlaas la ak ñu selal ko te bu ne seere mooy ñu nag ñu ànd ak Cheikh Ibrahim nekk de koda xadim gis nga boo dekkoon xadim boo dekkoon xadim xadim lépp doy na man xaadim man xaadim bàyyi laa moo tax fii doo fi dikk rek déedéet xaadim ngay indi fii yàlla nañ des ñun si la lax la nañ des ànd ak li nga xamante ni bépp yiw bépp jàmm bépp kontaan te ànd ak ñu ngi nekk fi sët fi suubati ma wa xidmati wal ixlaas loo wa salaam nag mbokk yi ah ñaari lettre ngi nii tey suñ bindab tey bii bëgg naa képp koo xam ne yaa ngi bokk ci daara gi tey kii bul ko déglu benn bul ko déglu ñaari yoon am na ci loo xamante ne ku nekk biti réew ak ku nekk biti réew su fekkee ne toog nañ bëgg ci yokkoo buñ ko seetee ba mën caa yokkee ban caa yokk man caa yokkee ku dikk buñ fekk nga fekk ñu yokk ca ñu yokk la ci boo dikkee fekkoo loolu nag ñu yokk ca duñu la ca mën a yokkal dara boobu ëllëgee boo wax ne Ousmane Gueye man dikk naa waaye man dafa ma boycotté wu booy boycotté de soo fekkee yokk ma yokkal la soo fekkee yokk du ma la mën a yokkal asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa <laughs>